ñëw lañu wax alors tous les en tout cas beaucoup de sénégalais ay xeltukat ñoom dañoo rafetlu le principe du dialogue. Mhm. maître mam aadama Gueye bi la devancé fi jàpp na ne dañu war a dialoguer. Mhm. Dundoy a dit la même chose ñooñu ce sont des intellectuels émérites. Mhm. et ñëpp jàpp nañ ne dialogue dafa war a am pouvoir opposition les acteurs doivent sa parler. mais tamit dafa am benn affaire bu xaw a bizarre c'est-à-dire ñu dem ci dialogue et quand on aborde la les questions politiques les questions de candidature les questions d'inéligibilité euh, les gens de la majorité disent doo leen fi aborder débat boobu le, le débat sur l'inéligibilité tant que d'accordu leen ne la question de la candidature du président de la République à nu de tudd la question de la troisième candidature du président de la République va être tranchée par le conseil constitutionnel et d'ailleurs et d'ailleurs vous êtes entendu c'est-à-dire loolu ça fausse un peu les règles du jeu et ça rejoint un peu ñu doon wax naan dañoo dem dialogue pour pouvoir légitimer Euh, cette question de troisième candidature yàlla rek a xam ce que le président va dire hein peut-être qu'il va agréablement euh, surprendre les, les les Sénégalais selon cette position mais c'est c'est suspect quand même. mais d'accord avec moi président bu ne duma dem dina am ñu mu agréablement surpris euh, surprendre bu nee duma dem tamit dina am ñu mu désagréablement surpris mais mais dama lay wax leen euh, may gis nga Maymuna non dama lay wax dama lay wax li am réellement xam nga Maymuna la majorité a un chef ki Sall bi ñu ñëwee ubbi dialogue bi la première chose qu'il a dit à tout le monde d'abord gars yi toog muy leen fii ñëwuñu fii pour aucun sujet n'est tabou te ci résolution bi dañu wax ni respect sur les questions de candidature dañu respect Euh, euh, des confiance euh, non non non waxuñu sax pourtant on n'a même pas parlé du conseil constitutionnel on a di respect aux institutions ou la justice des choses comme ça mais je veux dire li ëpp solo xam nga mooy lan yàggatul cette question là de la candidature yàggatul di yaaxay président nee na keroog dama ni woon du wax parce que jotagul jot na dinaa wax mais du ma wax tey damay bàyyi ba après tabaski ma wax li nga xamante ni moom laay wax donc moi je pense que. alors fii ñu ne xaaral mhm. la commission déclare que le respect des institutions de la République est un devoir impérieux pour l'ensemble des citoyens notamment l'observation par tous des règles héritées par la Constitution les lois et règlements en vigueur au Sénégal ah, kii boobu ngay wax disposition boobu ngay wax dama lay wax leen léegi ah. yow ñun léegi bu ñu nee par exemple bu ñu bu ñu bu ñu taxawee rek ñu ne par exemple euh, les acteurs politiques yi participer au dialogue ñoom ñooy déterminer kan mooy bokk ak kan moo dul bokk mais où est la place de la justice mais je pense que li ñu wax nii c'est du français c'est pour montrer aux gens que euh, le respect des institutions et le respect des décisions de justice dafa incomber à tout le monde donc moi je pense que ba léegi man dialogue bi toog naa fa membre commission la gis naa ko te am na xam naa tamit lu bari li ci am moi je pense que globalement c'est rassurant qu'on en soit ainsi dafa am na benn affaire bu ma doon wax dama ni euh, képp ku boy côté dialogue bi tu signes presque un acte de suicide politique xam nga ndax lan euh, a euh, <coughs> les lois du jeu c'est-à-dire les lois électorales loi yooyu c'est immuable du bouger mais les règles du jeu se discutent souvent entre ci acteurs yi ñooy toog waxtaane ko te dama wax ni ku fa nekkul lañ fa waxtaane ba tënk ko boo ñëwee buñ koy teg nit ñi tamit dañ la koy tegaale mi ngi mel ni ñu ne wax ni par waaw mi ngi mel ni par exemple ñu wax ni euh, ñun ñu jëm ci ñu ne nañ jëm dialogue bi ñu ne ah tonu ceeb ton daal la ñu war a yenu ay ton léegi ñu ne ñun ñi waxtaan nañu ku nekk àttan na cinq tonnes ñu ne noonu nañu kon léegi nag ku nekk jël cinq tonnes yow nga di du ma ñëw ndekete yow deux tonnes nga attan bu ñëwee yan la cinq tonnes yi <laughs> yaa causé sa bopp problème beneen élément bi mooy dañ ne la kaay gee nga jàkkaarloo président de la république moo nekk la clé de voûte des institutions nga xamante ni moo nekk ci kaw waxuma Macky Sall président de la république laa wax moom moo nekk ci kaw jiite ñëpp nga ni du ma ñëw foofu nga préféré dem dans la rue. Euh, policier bi nga xamante ni ci chaîne de commandement bi moo gën a nekk ci suuf di la dàq di la dóori lacrymogène alors que fee boo demee devant le le président de la république mën nga wax lu la neex mën nga wax lépp li nga xalaat pour ñu jël ko en compte mais il y a problème xam nga dama d'accord ak euh, Souleymane Ndéné Ndiaye fenn ma di ko nuyu mu ne man je suis un ancien premier ministre bon choix la mais je pense que c'est un choix mu ne man mais duma dem ci mbedd mi man j'étais chef de toute l'administration y compris la police ñëw taxaw policier di ma ko commander di ma xëcc may dem donc dafa am fi nga xamante ni war nañ ko mën a dépasser et je pense que li may wax man xel bu rafet fu ma ko dégg dama koy jëli li ma dégg Abdourahmane Diouf wax ni démocratie de concordance boobu war na mën a nekk te gars yi xam nga lu ma jaaxal. Abdourahmane il s'est radicalisé. génn ci ay démocratie mais d' accord bu ci génnee dama ni ah. concept la bu mu indi. Ah. mais xam nga gars yi lan moo ma jaaxal jaaxal mi ngi mel ne bi ñu dem di campagne programme boo gis. di gis ni daanaka programme gars yi li ñuy présenté mi ngi ci programme Macky démocratie de concordance boobu ñuy wax weesootul li président Macky Sall woote dialogue et un dialogue volontariste c'est important man ça fait peut-être un peu plus de plus de dix ans en tout cas may dem di assister di xool les dialogues en Afrique li gën a raar ci dialogue mooy dialogue bi nga xamante ni kenn imposé wu la ko yow yaa am président de la république moo toog xam ni effectivement gëm na ni réew mi problème yaa ngi ñëw coow yaa ngi bari mu am tout la majorité pour pouvoir gouverner te sànq bi ma lay wax ni li wan ni que suñu démocratie mi ngi dox mooy di nekk tey assemblée nationale bi nga xamante ni euh, c'est presque tangent en termes de voix donc mais malgré tout suñu loi yëpp mi ngi jàll président di non dañ dañ toog dialogue donc moi je pense que globalement. mais intention mais mais mais, mais dialogue bi li ci président gagné kenn gagnéwu ko ci dialogue bi calme la tension politique dialogue bi tas na yeewi tas na opposition bi. Ah? Euh, dialogue bi en tout cas ëllëg. je sais pas ce que le président va dire mais si le président décide d'y aller ne c'est sa conviction qu'il peut se représenter c'est pas les Khalifa Sall la duñu fi taxaw di yuuxu dañuy xaar ba le 27 janvier conseil constitutionnel wax parce que d'accord nañu ci ensuite li ñu def fii les conclusions là euh, c'est du papier hein c'est très beau hier tout le monde était content Mais si le pouvoir ne montre pas une bonne volonté pour appliquer cette conclusion-là aussi, en fait, dialogue bi, l'opposition s'est faite harakiri. Euh, Maïmouna, man man nga ma may lenn ma wax la. ëllëg mënu amuñu marge de manœuvre pour contester lu bari de. Maïmouna parce que ñoo ci d'accord. a man mënuma la wax par exemple euh, lan la président di wax ak nan lay doxale non man waxuma li muy wax nañu xaar rek. non moom laa soreetul. mais dama ne président dama lay wax lay wax tout intérêt à dialoguer te dialogue bi moo ci ëpp avantage. dama lay wax nii la mooy bi ngay wax naan est-ce que du dafa def li ëllëg mën na ci génn. man waxuma lool de. non mais li nga wax noonu lool la. dama ne dama ne lii c'est du papier le papier waaw. si les choses ne se passent pas comme telles. comme telles c'est-à-dire ñoom amuñu. mais comme telles mooy dina non en fait quand tu dis comme telles mais yéen yéen a yor la mise en œuvre yéen a yor l'administration électorale waaw mais dama leer leen xam nga xam nga actuellement nii on parle du président de la République parce que moom mooy suñu kilifa du président de notre euh, majorité foofu laa lay wax ni la lii nga wax ni c'est du papier mu bind ko ñu bind ko ëllëg mën nañ ci génn loolu je pense que c'est les pouvoiristes qui font comme ça. CNRI 2012 2013 la fi de. attends CNRI. c'est quoi CNRI 2012 2013 mais CNRI CNRI qu'est-ce qui s'est passé le président a dit que. Hmm. ja euh, nu mu tuddati commission la confié naa leen liggéey mais bu ñu demee liggéey indi ko mais dañ ma koy jox. <laughs> man ma ne te tire pas une balle. Ouais. le président il a dit hier ce ne sont ce sont ce ne sont que des propositions dama bëgg mu leer. mais mais mais. et et ce qu'il a l'a assumé nee na ce ne sont que des propositions. waaw mais propos dama bëgg mu leer. non waxuma la loolu dama ni. ah li ma wax nii ak euh, li ma la wax nii lu am la dama ni quand le président de la République te di que proposition la mais mais naturellement proposition lay doon mais rappelle-toi également que c'est le président ki a qui nous avait dit que proposition la mais consensus bu ngeen ci am bu ngeen ñëwee dama koy appliquer. waaw mais démb. xam nga loolu ca ouverture ba la mais démb. Macky Sall est un homme politique dafa ne. un homme politique dafa ne dama lay on se met bien d'accord. waaw ce sont des propositions. que mais justement c'est pas parce que xam nga ndax la. mais c'est pas des impositions. il ne l'a pas souligné par par par par par hasard. non dama wax ni li ci xam nga les pensées des hommes sont sombres les arrière-pensées le sont davantage Maïmouna c'est-à-dire que nit. xalaatam munoo fa dem ci ginnaaw xelam di xalaat la la xalaat mais li ma xam man mooy dina que li ma dégg président wax ko fii il n'y a pas de sujet tabou ñu ne ko wëy mu ne discuter leen tous les points yi nga xamante ne am na consensus bu ngeen ñëwee ma appliquer ko mais man dafa am li nga xamante ni mu mënumaa toog fii di waxal président lu baax li nga xamante ni waxul ko boppam quand il dit maintenant ba tey pour man il ne sait pas di dire quand il bu ma euh, euh, li ngeen ma wax nii c'est des propositions. Mhm. la précision est de taille. waaw mais ba tey waaw mais bu dul proposition parce que ñun bi ñuy liggéey dans les toutes les commissions bi ñuy liggéey on avait dit que conclusion yi ñu ci am nous allons proposer ça au président de la République et ce même président qui te dit que proposition la moo la wax ni la lépp lu nga xamante ne am ngeen ci consensus dina ko dinaa ko accorder.